dafa mel ni euh, police daf leen baare effectivement euh, ñi wër Barthélemy Diaz euh, gis nga ko le maire de Dakar moo agsi fii pour ñëw soutenir Ousmane Sonko. monsieur le maire. monsieur le maire quelques mots rek ñu gis sa déplacement fii ci cité Kër Góor gi lan nga mën a wax mbokk internet yi lay seetaan. mais loolu mooy yoon man saay buñ ma doon bundu xatal Ousmane Sonko doon taxaw. taxaw ngir démocratie te loolu moom fi indi taxaw ngir démocratie te amuñu ci xel ñaar am amuñu ci benn xel ñaar day dem ci jàmm dellu siwaat ci jàmm parce que loolu mooy yoon leneen lu ñu fi def tamit mooy tooñ te tooñ baaxul. mais seen kër ñi gis yow tam tax loolu. waaw loolu sympathisant am lay waxal ak ay militant am man du ma militant Pastef man du ma sympathisant Pastef man allié wu Ousmane Sonko la ak waa Pastef donc fu Ousmane Sonko nekk ci xat-xat damay taxaw te suma baat ci kaw. ku laal Ousmane Sonko laal nga ñu parce que lu ñu namm ci Ousmane Sonko ñun xam nañ ko te moom la ñuy xeex mooy troisième mandat bu ñu teree Sénégal waaw. est que da ak moom ba biir palais dañuy ànd ak moom mais parce que tout de même li démocratie la république la nous avons le droit de circuler librement je pense que kenn wootewul xuloo kenn wootewul xeex lu ñu woote mooy mobilisation ginnaaw jëmm Ousmane Sonko mobilisation ngir démocratie ak ngir ëllëgu démocratie parce que lu ñuy woote Sénégal mënatul continuer. di bëgg a woote yebel ak nooteel ku am lu mu namm ci ëllëku Sénégal ñu fexel la ba doo bokk loolu wax dëgg yàlla dafa doon dak Sénégal. mais est-ce que nga mën a yegg parce que accès bi déjà gis nañ ne gars yi na nañ ne pour nga avancer. waaw loolu loolu day day wane rek lu euh, ñëpp di euh, euh, xam ci ñoom plus ou moins mooy ay ragal lañu parce que soo ragalulee da ngay bàyyi ñi di dem di dikk voilà su loo wóoree ni que lu ngay def ni yaa ngi ci yoon dangay ngay bàyyi ñi di dem di dikk. parce que ñun daf ñu wóor na ne que ñun lu ñuy def ni dañu nekk ci suñu dëgg te tamit dañu nekk ci yoon di dem di dikk loolu kese la. alors c'est quoi le message pour le maire de Dakar lan mooy message bi à l'endroit de tous les Sénégalais. de tous Séné de tous les Sénégalais mooy résister est un devoir. et au besoin les Sénégalais devront savoir qu'ils ont le droit de défendre la démocratie parce que bërki démb Karim Wade la woon démb xalifa Sall la woon. tey ñu ne day nekk Ousmane Sonko ñoo lank ñoo bañ maintenant nag lu ko Macky Sall lu ko mbir bi jaral laa wax lu ko mbir bi mënti jaral. na ko askanu Sénégal déggee noonu particulièrement la jeunesse dama ne jamono ñuy toll nii ragal ci yëpp yàlla la te ku wax feeñ tout le monde sait ce à faire au cas où Isso, isso, isso, isso. c'est bon mën naa dugg. waaw am na boo am waaw da ngay ñëw sama ginnaaw waaw boo taal sama kanam da ngay wax day dégg.